asalaamaaleykum dal leen ak jàmm seen bés MTV mbokk internet yu ñuy suivre procès Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang eh, mbir ma ngay gën doy waar si côté président Ousmane Sonko parce que nag si lu yàggul dara nag si ay heure ñu war a amale bi le procès moom Ousmane Sonko avocat bi nga xam ne nag ab France la jóge woon fële sa France ñu koy woowee Juan Branco nag dafa ñëwoon Sénégal fii pour euh, jàppale kii di président Ousmane Sonko waaye nag euh, ba mu tegee tànkam Sénégal matul dix minutes ñu daal di koy révélé waat nag daal di koy euh, delloowaat fële sa France moom avocat bi ne mu koy ñaawlu lool di wax que ne nag li ma doon wax moo ngi nii maanaam yéen si réewum dictateur dictateur dëgg ngeen nekk muy réewum Sénégal. nga xam ne nag avocat am euh, Sonko après avant lool sax nag ki nga xam ne moo di euh, maître Ousseynou Fall moom tamit euh, dañ ko suspendre moom it mu warul mën a bokk si eh, procès bi nga xam ne mooy dox si Sonko Mame Mbaye Niang avocat bi nga xam ne tamit moo di maître que loolu li nga xam ne tamit dañ koo sotti woon li nga xam ne moo di gaz ba mu mujjoon am ak aw gi gu ma ba demoon police France fa kon président Ousmane Sonko ñetti avocat mi yi nga xam ne nag waroon noo ñëw jàppale ko si bisu tey bii nag ñoom dañ dañ dañ si maanaam manqué kon Ousmane Sonko ah, nar na wéetu lool si bile procès.